baax jërëjëf borom daaru waaw noonu la demee nag bàyyi lan moo lan moo waral bés bi tey bés mooy ah. maanaam comme nga gis lu ci man ma dikk waaw ah. man ci Serigne Touba sakat tu tànk yi ñoom la woon quoi mooy jënd bu ndaw mooy li ni indi fii ni wala la woon ñun ñooy seen i grand frère lañ ciy jàppale la demee nag teg leen tànk boobu ba léegi mu ngi rafet vraiment chaque mu gën a yaatu loolu la demee te du kenn la ñoo fi gis ñëpp la yi bu defee benn kii def na benn góor jàpp si góor bi mooy ñaata édition bi mooy septième édition kon yàgg na septième édition waaw loolu la demee nag septième édition mais lépp su tànkee la ñoo si jàpp moo la demee a màgg leen di ñaanal nag kii la jëmm ji nii kii la moom mooy sama jot baat am di Moustapha lépp moom la mais waaw yàlla dafa lu daal. waaw ñooñu demul kon si moom la ñu liggéey dëgg la moo waral sax muy continuer ba ba léegi ñu siy jàpp ñu gën a def te dina gën a kon si moom la commencé si moom la tàmbalee waaw Thiat parce que kenn moo ko fiy teg yor tiiram bu ndaw ak benn bradaam Serigne Touba moo waral ñetti mbana yii nii yëpp ñun dañuy moo waral sax ñu jël micro bi di wax waaye duñ ci lenn waaw noonu la demee ba 5 heures 2 heures fekk booy teg lépp dafa am ñu nekk seen ginnaaw di leen jàppale sax. mooy tout temps ki ma wax ne muy booy jënd mi indi la fii ak ay moromam ak moom. moom mii moo siy jàpp moom mii moo jàpp si kafe bi abaar ñoom sëriñ bi la ñun fii ca ñu ngi teg tànk nii abaar tout tànk bi si tout tànk bi émission nag moo nekk kon amul benn autorité bu leen si jàppale. non non amul benn autorité bu si jàpp ñun ñii la fay. waaw waaw suñu këll ak suñuy poos borom ak borom daaru kese amul leneen bi jaar ñëpp waaw loolu la demee ñoom ñu di wax nii si ñoom lañ njëkkee. la maam Thierno Sibori la war na seen naa Ousmane Bakary Mori lépp maam waaye nag tout tànk comme ni mu la rek ñoo ñoom ñoo sanc fii maanaam quoi ñoom maanaam ñoo ñu jàmbuloo Dakar moo tax ñu màccaloo ñu suñuy baaraam waaye lépp ñoom la ginnaaw sëriñ bi ñoom la ñoom lañ fi gën a yàgg gën a wér jëm si yàlla si nii rendre hommage Abdou Kayda bi dem siyaare si damay œuvre lañ ci dara dama fekk war na seen Ousmane Mbacké Ndorène su ma seyoon nga jël leen nag mu jël naa leen yéen chaque jour ngeen koy def wala chaque euh, koor gi benn yoon ngeen ko si def mami def chaque jour je sapé lépp sëriñ bi la chaque jour trois mën a lay teg sëriñ bi jouru korité sax muy loolu ci du ci sama jëndu fonde bi sax dama koy teg feneen feneen lépp Guinée ko waral loolu jangara ci du fonde bi roi des seref taalibe bu def daaru Guinée Guinée la

fekkee ren ñëw nañu fekk ñu jàppale ñu suñu ñoom Aba Baara ñoom ñëpp jël nañu seen xaaj def bëgg nañ nag tamit ci biir kilifa yi nekk ci dëkk bi ñu ngi jàppale ñu xam ne ñun lii dañ ko def maanaam ngir jeunesse bi yëpp daal parce que lii nii dafa non dafa rafet. yàlla na ko yàlla yoroon. yàlla na ko yàlla yoroon. yàgg nañoo may ndox rek jubóol. maire bi nii suñu yaagoo bu baax la taal bi boobu muy ndox ndox jox parce que alxuraan am na beneen yaay Ibrahima Ndiaye ñu doon abal ay ay ay mbar affaire yooyu soxla ñu si dara daal maanaam ñu jàppale si lépp ndax Serigne Touba Mbacke dafa sew ak borom kër yi tamit. waaw waaw yàgg na ci quoi. waaw loolu la ñu daan daal mais moom tamit nit la doomu aadama. kon daal nañu Gana ah. tey mooy suñu septième émission ñu koy def te ñaan yàlla xam parce que tànk ñoo di ko def. ak chaque jour laay am chaque jour premier bi laay ay ay jàmbaar la ñu yor quoi ay booy booy dinañ. ak Boy 2 ay René Seck ak ay Mama ñun ñëpp naan ñoo ci nekk loolu ñoo si yàlla si 2019 la bëri arène 2020 mu gaañu mais amaana suñu borom lañ def ak loolu moo gën. booy dafa doon gis ñaar sax. waaw 2020 arène 2020 mu gaañu mais amaana suñu borom lañ def ak loolu moo gën. ñu leen di sant di leen gërëm nag di leen ñaan nag xoolal xoolal ñu ngi teel a. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw. dundal. waaw maa lay yow sax dañ lay sant yow jàmbaar nga yow. am déet ñëw ñëwal fii dañ lay njëkk a sant. lii nii dafa yàgg. lii ñëpp yaa ngi ko def waaye ñun ñëpp ay tout tànk yu garaan yu jàpp xam nga fii ñu ñëpp benn lañ daal. góor jàpp ci góor. booy tout a def ñuy def ñun ñëpp dañuy xëy ñu ñu jiit ko ku jiir damay teg xam nga lii yombul si bon quoi ñu ngi xew ñu ngi jàpp ñaan yàlla dem si kanam kaw kaw kaw bu amoon fii ku nekk ba la boo def groupe sax dangaa war a ñëw di jot lii la ñu lañ juddoo ci ñëpp la baax bàyyi la bàyyi la bàyyi la ñëw nag xoolal suñu biir ay biir ñu demee ñu ñu ay mbër rek ñu ay supporter ñu ay supporter lañ bàyyi la xam nga ñu benn doo xamee mbër benn dañu ñaan yàlla ko ñu jàng ay xalile ay xalil ay xalile ay xalile waaw jàmbaar yi maa ngi siyaar ñëpp parce que man gan laa fi waaw dama fi tuxu si trois ans ma gis ne gars yi ñu ngi teg café teg meew teg suukar. teg café teg goûter lépp Khalil Petit la moo ko waral. ñu oh, oh, oh, ngi jaayante barki borom Touba kenn du borom daaru. waaw. dana talaata yemook ñaar fukki fan ci bisu Cheikh Ibra Fall maanaam ci koor na Serigne Touba maanaam di saari xewal yi ngay gis nii nii lépp gaa ko jaante na daaw def nañ ko xam nga gën gaa def ñu koy gën a yaatal baay waaw yàlla ñu borom bi defal tawféex ba sax at ñu koy defal seen ci di ko rayal ay nag ko joxal jaamu yàlla yi ñuy moom loolu la loolu la bi mu ñëwee Mbacke Bawol def na na waa kër gi yëpp bàyyi wal moom dinay soq di rooti di wal wala di liggéey di ko joxe kon liggéey sëñ Touba bi maanaam loolu am daal yàlla lu sëñ bi defal dégg ak topp ñu ngi leen ziar bu baax di leen ba meewoon si nooree yi ak إذا تمام عبادا إذا على جملة الأساس الأبواب sante yàlla julli si yent bi sant sama ñaari waaju waaw di sant bu baax a baax waa Kër Massar rawatina waa Darou Missel di nuyu sumay xarit yi nga fi fekk sumay mag ñi ma àndal si bisu tey bi yëpp vraiment kontaan naa si ñëpp waaw di la masawu coono bu baax a baax na waaw jaamu yàlla rek moo tax ñu koy def. waaw tey jii tey lan nga woote woon Kër Massar Darou Missel. waa tey dañoo woote woon Mamady Kër. billaahi ñëw fa yéene xëy xam jaamu si yàlla bu baax. fekk nit ñi jox leen ay ndogu waaw tey ku si nekk boo demee sa kër am na ndogu ku si nekk mu nga ndogoo sa kër mais dafa rafet ñu ñëw ànd seeg man ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi guddee wàcc dañuy yéex egg seen kër ñu koj leen teral leen jox leen ñu ndogu acte boobu lañ doon def di depuis kañ nga commencé def mën di kër. waaw loolu nag buñ ko tàmbalee yàgg na après dinaa la jox am ak bi si ginnaaw di la wax ban année na presque 2016. 2016 mm. ba léegi waaw man damaa ñëw rek fekk cin bi teg. cin bi ba mag dafa am samay mag yu ko doon def. Mm-hmm. chaque jour ngeen koy def wala chaque at ngeen koy def si koor gi benn chaque jour je fais chaque day fees dell ni lañ koy dundee chaque jour waaw. si question bi noonu laaj yi fële rek. Mm-hmm. dafa am ñu nekk seen ginnaaw di leen jàppale. non suñu ginnaaw nag Issa kenn nekk fa di jàppale si café gi bu ñuy jàppale dañuy jàppale si méthode làmb. lu si mel ni mel Dieynaba Ndiaye ñu ngi koy nuyu au passage. Euh, xam nga ku si mel ni Souleymane Dramé madame Dramé borom 24 house xam nga ak ku si mel ni Idi Wele xam nga ñooñu jàppale si cadre de lamb quoi. mais bu fekkente comme kafe gi nii non ñun ñooy jël suñu propre eh. moyen quoi suñu propre moyen parce que yàlla lañ si ut. dañuy génne suñu poos ak képp koo xam ne bëgg nga si jàpp nga ñëw jàpp si. Mm-hmm. mais nag ñoo bu baax.

kon tay di ni koñ bi gox bi la fan ci club la lepp la mm-hmm. parce que sumay xarit sumay mag ñepp fi ñew quoi japp ci bu baax comme d'habitude ñu ngi def tout temps wa day delu ci ce combat bi mujjé bi nga mujjé bëré mm-hmm. ciolu bëré won na mm-hmm. ñepp neneen jinn dañ ko won bu jël combat bi jinn na mom bu bu yaq bëss bi quoi mu dem jël combat bi ba yalla dem lu ci def mu jël defet lool lan moko waral wa comme ni nga waxé ni nak loolu ci xew dé sumay mag yi nga gis ni wax na ma ba sonu bu bëré staff bi tamit wax nañ ma bul bëri mais man maa nekk xale quoi te man làmb rek laa opté man dama bëgg làmb waaw man làmb jaral na lu nekk waaye naa lu bëri ngir làmb parce que seen Touba naa ay ay nit façon nit bu ne topp naa ngir làmb bëri rek laa bëgg mais nag la jut si ne wax fooy toogee quoi. waaw mais ak loo bëgg bëri bëri bëri gis nga gis nga mbooloo bi topp sa ginnaaw. gis naa ko dañ kaa ñëpp ñëpp bu ñu sa ginnaaw ne la daxaruñu ko. Hmm. loolu moo tax ngay forcé di bëri te gis nga mbooloo bi topp si ginnaaw tey boo ne Kër Massar ñuy njëkk wax ñu ne Djinné Bou Ndaw waaw tey loolu staff bi ñoo si d'accord quoi mm-hmm. mais la majeure partie samay supporters yëguñu ko pourquoi yëguñu ko mm-hmm. parce que bëgguma leen décevoir mm-hmm. parce que joxal nañ ay tiset dind ay billet ba bële ñu koy waaj di sonn premièrement bi ñu yëgee ne samedi bi lamb ji amul dañ ko yóbbu mercredi ñu bëri seen moral moo tax ñëwuñu stade sax am na ñoo xam ne ñoo dem liggéey laa def noonu stade bi ba ñëpp di ko wax. te incha allahu rabi su ma ñëwaatee arène nationale mu tombé fi kenn. loxo day dar gémmiñ. loxo day dar gémmiñ day dar gémmiñ ñun dañoo bëgg làmb te dañoo bëggante. ay jàmbaar jàmbaar ay bëgg jàmbaar. waaw jox ma sa waay mhm. mën naa ko. mën jox CNCR ah? wala a topp. ñaas ñaas wax nga fële. waxoon ñaas pare ñaas tàngal. ñaas rek. non jox ko jigéen ñi kon soxna yi. acca jaara kii nag.

ñu nuyu waa Daawu Missel particulièrement waa Kër Massar case bu aussi fu ma dëkk. yow lan ngay présenté si fan sa club Jënne bu Ndaw. waaw Jënne daanaka wax na lépp. non loo si présenté wu yow. man lu ma si présenté wu. si fan sa club. ah lépp laa ci rek jawar laa ci xarit laa ci lépp laa ci. tey seen bës bi ngeen organisé loo loo si jàngat yokkate. Ah, yokkate. di ñaan tamit luñ mën ren rek déwénee yàlla na ñu rafet na taxawaay bi rafet na euh, mbooloo bi rafet na ànd bi rafet na yàlla luñ mën rek bu déwénee yàlla nañ ko te lii day dëgg day day boole en même temps aussi dafa rafet di ñaan ñu ñu ko doon defandool te nekk ñu fi yàlla na leen yàlla xale àjjana ñu fi des. yàlla dëgëral taxawaay bi comme junne nu ko waxee rek daaru misal daaru misal la dañoo bëggante te lépp benn la mbër yaa ngi nii Baay Faal yaa ngi fi góor yàlla yaa ngi fi jàmbaar yaa ngi fi ñaan tamit na leen autorité jàppale lii nii ren liñ def nii bu déwénee na si ñëpp teg loxo lii dafa rafet bu jeunes yi jar na sax ñu def ko comme genre kees natt lépp mais ñaan tamit ñii ay xale lañ dañ leen jàppale te yàlla rek a tax te jullit lu wax dañoo bëgg laamu ren di seegal ngi ne Babacar Toba ngi fii ñeneen ñaa ngi fii fi mu dëkk kaas ba Kër Masar dañuy dañuy dund dañuy dund làmb di ñaan ñu jàppale leen te amuñu ku dul ñoom te peccum liir bu neexee lu ñuy wax nday jaa jàpp ci mbëgg yi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp taxawaay bu rafet na lépp rafet na. jërëjëf ma sama yaay booy yaay booy di nga wax de.

nekk na nekk bu baax ouvert am jom gëm boppam bëgg tamit lu muy def aussi ndax tey dañoo ne nit luwee ay siège yomb na luwee bâche yomb na ay nit moo jafe na xel am na ay nitam waaye moom moo ko liggéeyal boppam dañu koy ñaanal yàlla rek yal ko yàlla may gudd fan bu yeggaloo ak sagoom waaw si barke Seydina Muhammad tamit seen li ñuy def ni lu lu ndaw daal tamit bu tay mais yàlla dafa def chaque année ñoom dañ koy def am ñu ko doon fekkee fekkee wuñu ko te ñu ko fekkee woon ñu ñu leen ñaan fi tudd dana leen gënal nga xamante ne ñoo koy fekkee nii dana leen yàlla muy gudd fan ak ñu koy yàgg di ko fekkee dëgg na yàlla daaru lañ dëkk dañu daaru lañ suñu dëgg daaru lañ am ñëpp dañoo bokk ndey maa ngi fi dama fee mujjee la yem. dëgg na xaar bu ma ñëw ñoom ñëpp a ma jàpp seen baax rek moo ko man dama leen di ñaanal ñun ñëpp daal may leen gudd far may leen li ñu bëgg seen biir xol ñu eggal ak seen xol. jërëjëf seen naam. joxal ma mbokk bàyyi fa loolu. Moussa ñaari kàddu. bisimilah maa ngi siyaar gaay bi nag yow li doon nuyu sax li ma lay wax rek yow moom daanaka. Mm-hmm. ci biir daanaka xam nga lii moom li ko waral dañu fay yàgg rek nekk ay ndaw xam nga nekk ay booy yàgg fi torop ñun ñëpp daaru sa lañ dëkk lu mu guddi guddi daaru sa lañuy fanante ñun daaru sa rek lañ am amuñ leneen te ku ñu bëgg rek ñuy bàyyi moom gis nga kii nag moom suñ booy la suñu rakk la suñu garant ñun ñoom ñooy ànd benn lañ mm-hmm. xam te ñun ñun ñi ñoo xeer leen di seega ñaas ñun ñii dañoon toog benn néeg di waxtaan ku ne pour dimbali sa waajur rek muy dégg loolu xam nga def ci boppam gis na loolu la doxee ba léegi bu ñu fekkoon si caaxaan caaxaan yooyu lay doxee fa force mais ñu fekk ñu dëggu di ànd di bëri ma ko ñu toog ba léegi xam nga kon loolu noonu ay jàmbaar la fekk mu ñëw nekkaat duggul jàmbaar kon dañ kay koy nangul gis na dañ koy ñaanal rek moo loolu ñu ngi suñu ànd bi seytaane ba ñooy dugg ndax ñun ñu mun nañ bañ a gëj a gisante gëj a gisante nii mais bu ñu gisante tey day mel ni sax ñu ngi toog loolu ñu dundee ñu ñaan tamit jàmm yàgg bi moo loolu moom moom naa instant yi bëgg naa kontaan continué même matériel ak seen baam baam jox suñu ñaas bi mu wax ñu dara ci làmbam bi moom ñaas sab na sab suñu ko suba tey mi ngi wax bismillah làmbam bi laa maa ngi sant yàlla ñu ngi teneen bi sant sama ñaari waajur góor laa de waaw ma sant sama ñaari waajur parce que ñoom tamit ñoo tax ñu lépp am ak ñaan waajur ñëpp daal moo tax lii am quoi waaw bu dul woon ñëpp maanaam gëm naa ne du ñeeg si biir parce que sonal nañ leen si lu ne waaw daaru misal moom lii nii du fi du fi gan quoi xamoon nañu yàgg-yàgg li day ñëw ndax dañ koy yàgg a parce que alxuraan ñi koy def ñu ne bu lu ñu def dañ booloo mais ñun booloo boobu am nañ ko daa am lu ci ñëwoon rek sant bi ma bu baax a baax a baax mooy li ma la wax fee sànq café gi depuis 2016 ñu koy teg ren la def 7 ans 2016 ba léegi ñu koy def ak si yàlla si nekkoon teg ak gars xam ne bu ñu demee xëy pareeguñu yenn gars yi ñi nga xam ne xëy moo ñëw teg ñeneen bu ñu àjjee fekk la si ñu di ko teg tey yàlla ñu def ba ñuy teg ñett cin te loolu sant yàlla am avancement dañuy ñaan mu gën a yokk ñuy dem ba teg fukki cin waaw yàlla mun na ko te yàlla ko yàlla def. yàlla waaw kontaan naa bu baax tey moom yàlla dama kontaan bu baax ndax waaye dama gis ñoo xam ne nii gëj naa leen gis. ak Serigne Touba Mbacke téléphone la indiwaat mais tey la mais tamit café bi ngeen café bi ngeen def nii sax at daaru mission ni mu yaatu est-ce que nekkul déwén ngeen gën ko yaatal bu tayee ngeen dem koñ bi suwaa ngeen dem koñ bëri loolu lépp mun na ne mooy comme li soxna comme mbër moom Kër Massar gi yëpp lay présenté wax li sànq rek waaw maanaam loolu lépp dañ ciy waxtaan kees bu amee loolu lépp day am hmm. kees bu amee loolu lépp day am des fois dañ koy jële fi yóbbu ko ba kaas ba hmm. teg ko fa ñëwaat mais kees mooy waral loolu kees bu amee xam nga ñun des fois yi ñooy jënd seen xaaj def si des fois sax këli gi laa wala tala këli gi des fois la hmm. na xëy suba ba ngoon laa la duñ ko sax tal gars yi ñooy jënd seen xaaj segg kële bu ñëwee day xaar kon ñun ñoo loolu dañ ko gëm kon ñun xaaruñu ci nit quoi ñun suñu bopp lañ ko tàmbalee doo ko def kon mu ci xaaroon ne la du ñu yegg fii pour man waaw gaa yëpp nag jàpp nañ ci suñ jugee foofu ñëw si làmb ji boo yëpp ay champion rek ay Djiné Bou Ndaw ay Rémi Sène ak Boy 2 waaw mais instant yi Ndaw la wax instant yi moo jugee si làmb di ko wax ne nag li def noonu ñàkk nga gëm mënut a weesu loolu seen nit ne la baal mais moom gisul lu dul gërëm Iya, ay ya, supporter am yàgg na tamit jënd ay folokaas 15000 7000 ñii 8000 ñii 10000 nga xëy na dem gaa am bis bi mënatul nii tamit day métti si ñoom quoi dina métti si yow mais dina métti si ñoom tamit mm-hmm. mais kon balaa caab comme moom ni mu def nii dama koy nangul ko waaw sevina bis bi génn na si yàlla loolu la dogal moom tey mu nangu ko gëm yàlla ñun ñu doon jooy moom moo ñu doon defal parce que alxuraanul karim kon nangu na daanu wóor na Serigne Touba moom moo ñu doon defal non ñun mënuñu gis defet mais arbitre yëkkati na loxo ñun ñii génn nañ suñu xaaj pour def recours mm-hmm. xam nga lu ñu wax lu at bi yëkkatiwul ci digg géew. noo daanu de boo defee recours moom lay daanu moom jinne nii mu ngi nii xam ne daanu. la non. gëmoo ko dafa daanu. waaw naas nangul naa la. jinne dafa daanu. waaw nangul naa la. waaw nangul naa la garaawul. mais pour ma xamal la leen nga lippal naan Baba Fawla. Mhm. kii mooy Baba Fawla papaay xale bi. ak Serigne Touba Mbacke. wóor na alxuraan ñooñu ñooñu da leen di leen di baatale par benn benn. lu garaaw laa lay wax nii. Mhm. parce que ñun li def si moom xam nañ ko. wóolu Serigne mais tey jinne fu mu toll si làmb est-ce yoon la tamit léegi combat bu yàqu mu ñëw ba si jour bi jinne yi doo xam ne kii lay bëre ak mbooloo bi topp ginnaaw ma ne la ngëm-ngëm mu weesuwul loolu daa am lu ne si moom. non war na non na toll niveau boo xam ne léegi lamb dafa nekk niveau boo xam ne niveau de professionnel la léegi. nekkatu niveau de amateur. na ay daye mbappa comme mbappa di si géej si meegu bëri non non. parce que mbooloo la léegi. xam ne moo def fa ne bëgg-bëgg moo ko ko bañal. mais dama ne la barki alxuraan karim booy boo leen rangale woon ni par benn la leen. du garaaw laa lay wax. parce que xam nga lu waral loolu ci koo yar di ba muy ndaw nga koy yóbbu premier combat mbapat ba arrêt nga gis mu arrêt mbapat dem bëri ñoo xam ne ñoo ko mag fuuf ñeen booy di découragé li moom day dëggal bopp te da koy ba arrêt ma nga suubaay am loo ci ah, a la 37 soo ko daanee ñu raay ko si te génn si kon arène pour man métti da ngay bëri ñu lay sécurité loolu noonu bu wane fulam li mu doon bu ko wanee arène barke alxuraan leneen la ñuy dégg te déwén xaw ma déwén lay doon xaw ma bu ñu ba pare dama fi ñëwaat mais neneen nga fiy ñëwaat doo fi ñëwaat sax dañuy wax ay waxu question xam nga looy wax jéeli bi rëy na. maa la wax ñëwaat yaatal moom foofu ma ñëw yaatal moom émission bi yaat li ñu waxtaan dafa bëri doxal bu dof. ñu émission gars yi wax nañu ñëpp waay. te ngaa ñëw Saalum Saalum. Saalum Saalum waay. waaw. Ah. Jinne fu mu jëm. Jinne. Jinne Jinne Jinne Jinne Jinne ba léegi mu ngi si yoonam. ba léegi jinne ngi si. non yan adversaire ñoo nekk sa kanam. ah yan adversaire ñoo nekk sa kanam. non actuellement dañoo toll si dañoo toll si waxtaan ak ay ak ay promoteur. Mm-hmm. ak ay choix adversaire. est-ce que yaa ngi comprendre. Mm-hmm. moo tax actuellement mënuñu tudd kenn. Mm-hmm. ñu wax kenn dara si yaa ngi dégg mais fii mois de juin wala ma wala mais incha allah rabi di ngeen dégg Djinné ak Dim taxaw na. Djinné ak Dim taxaw na ci kàttanu mais lan ngay wax autorités yi ne Kër Massar pour ñu ñëw jàppale mbëri Kër Massar yi. waaw loolu gars yi di ko jooy na. waaw loolu moom loolu moom loolu moom ah comme li ma waxoon rek laay waxaat même kàddu bi laay waxaat benn façon laa koy waxee mooy que ne ñun ay doomu Kër Massar lañ ay xale lañ tey moo nañ génn fii laa wax nii def gang di taal ay pono wala ñuy song ay osa wala ñuy daj ay bikit mais dañuy boole suñu dërëm suñu ñaar dërëm di teg ay café di ko jox jaam dañuy génn di jéem a xool ay nit yoo xam ne sonn na ñu leen di jëm dimbali ñun dañuy def et te xool instant amaguñ dara yaa ngi dégg ñun dañuy génn fii mobiliser boole suñu doole dem stade ngir lan suufee benn nit bu génnee ñu ñëpp ñu après ñu ñëw taxaw sauver honneur ici yaa ngi si kon ñun dañoo war a jàppale quoi pourquoi ñu war ñu jàppale parce que amuñu benn choix boo xam ne day yàq wala mu nekk injustice duñ ko def yaa ngi dégg. kon Kër Massar nañ ñu jàppale bu baax pourquoi ñuy jàppale parce que ay xale lañ te ñoom Kër Massar lañ dëkk ñu ñu dëkk Kër Massar keneen koo jàppale yàq nga ko jàppaleel doomu Kër Massar yi. monsieur le maire Kër Massar sama combat bi war naa ko ba sonn gisuma ko te loolu du yoon da koy yàqal bi ak ay doomu Kër Massar nay yombal gise bi ak ñeneen sax waxutuma ak doomu Kër Massar tey ñu suñuy grand ku si mel ni Assane Touré kër gi nga ñëw nii ah. lii daf ñoo marqué ñun ñëpp parce que la moo tax suñu meilleur ami dafa dëkk fii kee mooy nijaayam Assane Touré. ñuy mm-hmm. ànd moo ñu man mii moo ma tette quoi mooy ñii ak ñii ñoo doon ànd bëri ndoo fu nekk am di Moustapha ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm. xëy na ko àjjana. Mm-hmm. café nga gis moo ko dibite. Mm-hmm. moom ak bëri bee maman ak ñaas ñaas talaa baax a topp ñu suñuy grand la ñu leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm. waaw loolu kese laa si wax nañu Kër Massar jàppale quoi bu ñu xeeb kenn. parce que tey xam nga xale tuddul xale xale mooy doone lu ne te bu doone lu ne da nga soxla. xam nga nañu jàppale deemen naa quoi maa ngi ciy woo waa Kër Massar bi wax yaatal nañ ginnaaw bi dañu ci ñëpp ñëw jàppale. isaan yi si foofu laay tëjee ma jox sama mag leen di seet. damay nuyu waa Géejawaay borom Lagos. waaw borom Lagos ak ah. waa Géejawaay di nuyu sama mag waa Boy Djine jabaram di nuyu suma famille yëpp suma famille maa ngi nuyu ñëpp suma limee juum xam nga di sumay ñaari waajur bu baax di ñaanal sama maam yàlla na ko fi yàlla bàyyi xam bu mu fekkee sama njëriñ di nuyu ñëpp sumay xarit am duri xam maa ngi koy ñaanal bu baax mafia alu bi mooy Pancho ñooñu maa leen di bëgg dañ siy jàpp dañuy sonn si man xam nga wax ni ba joor xam nga ñooñu ñëpp maa leen di bëggee Kër Massar bu ma laa wax du ma lim benn secteur mais ñëpp maa leen di bëggee dañ may jàppale bu baax a baax a baax te jinne mu leen di jox xam nga rendez-vous mais wala juin incha allahu rabi da di déggaat bàyyiwuñu ñooy sant ñëpp di gërëm ñëpp di bëggee ñëpp ku ñu limul la nga xam ne dañoo juum wala suñu xel moo fàtte mais ñoo ngi sant ñëpp talaa ñooy bëggee ñëpp di bëggee waa Sall les Imos dañ may jàppale may entraîné te du fay xam nga su ma coach yi ñooñu maa leen di sant bu baax xam nga tey demee na koor gi moo ñu fi moo tax mu wax lépp mhm. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax si yéen bu baax. waaw nag ren de Ngop borom Lac Rose. Euh, ziar nañ Baye Tall. sant leen. waaw di rafetlu seen teewaay fii waaw instant yii dañuy sànni cadre mais gars yi wax nañ lépp waaw parce xam ñun ni ñu gisee nii nii noonu la ñuy nekkee chaque jour barke Serigne Touba waaw oh. waaw di leen nag waa yéen seen teewaay fii nii parce que booba léegi bàyyi woo leen yéen a ñuy fekk fu ne waaw dina nag moom champion la quoi xale la dëgg la wax na ko bu muy làmb boobu tout tànk la ñu ngi nekk xam di ànd moom mu ngi nekk tout tànk xale bu ndaw xam nga di ànd ak ñun ñuy jaante mu nekk suñu ginnaaw kon tey jii bu demee ba yàlla def ñu koo jaante a rek xam di wax di ko ñaan mu gën a yokku fu mu teg tànkam ñu xoolal foofu la fu mu bàyyi. waaw di rafetlu lépp gaan barki yàlla kàddu yëpp nag rafet na gaa yi ñu fi wax yëpp waaw di ñaan yàlla xam nga defal ñu jàmm rek waaw incha allah tax def tam di kontaan si bu baax a baax di ñaan si seen bi gaan si yàlla def jàmm gaan bu gën a avancé ah